asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba ma sante bépp délégation régionale bu jóge ci région yi ñëw muy délégation albinos yi ñëw teewee ci suñu bis bi nga xam ne bis la boo xam ne euh, dañ ko seet tànn ko waxtaan ci bëgg ko def pour sensibiliser ki nga xam ne mom la ñëpp jiital muy le président Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xamné moy le premier ministre monsieur Ousmane Sonko jaarale plaidoyer bobu ci sénégalais yépp di wax né liñu fi dajalé tay dafa am solo ma bëgg ko tënk pour ñëpp xam ko mooy bu ngeen association nationale des albinos du Sénégal association bi nag li tax parce que depuis indépendance ba 1960 gis albinos tey li ñu bëggoon mooy jóge fii di place de la nation dem ba mbundu RTS def suñu déclaration mais dafa am ay gàllankoor gàllankoor yi mooy BRT bi dafa tax kenn mënatul jël ci action yooyu et ñu ne li ñuy def mooy bi ñu préfet dimbalee ba ñu mën a ñëw ci jardin bi ñu mën a fexe ba li ñuy wax mu jàll ñu am ci yaakaar bu rëy nag ci presse nationale ndax man damay wax ne ñoom ñooy quatrième pouvoir ah li ñu dajale fii nag ay méthodes yu bari la yoo xam ne dañ koo tënk li njëkk a jiitu muy bi ñu créé suñu association en 1997 dañoo ñëw ba 2000 ñu xool ne association bi trois 300000 francs rek la ko état Sénégal di jàppale par at pour 10 500 albinos. dix mille albinos yooyu mënul jënd juróom ben crème solaire pour juróom benn xalé fi ñu né ah li de buñ ci bëdé continuer dina doy waar kon nañ créer fondation ñu créer fondation ne suñu centre bi nga xamné depuis 97 américains yi ñoo ñu ko tabaxalon mu màgget baaxatul nañu wut ay ndimbal pour tabax centre boobu ñu tabax ko Paré 2022 2022 le centre bi paré. ñu def suñuy assemblée général ñu gis ay nit yoo xam ne ñoom dañoo bàyyi woon ci kuréel bi depuis 2000 ñaar fukki at ak ñett ay nit tabax seen centre ngeen ñëw taxaw ci complicité ay autorités yu nekk Thiès ñu nangu suñu centre jox leen ko ñeenti nit muy ñeenti puune yoo xam ne tey li doon seen devoir mooy seen kuréel ba ñu créer seen bopp muy finance fédération national des albinos du Sénégal ku dugg ci internet bi di ko gis di nga xam ne bokkut ak ANAS waar wi yaatu na kenn ku ci ne mën ngaa bay sa waar bu dee li lay yitteel mooy njariñu xale yi bu dee li lay yitteel mooy puune ñu jox ko gëddëm bu dee li la yitteel mooy puune ñu jox ko droit am kooku jarul tooñ jarul wuruj jarul nax ay autorité di jël ay faux documents ay faux document assemblée générale diko jox ay autorité di gëm lo ne ñom ñoy annonce lolu wuruj la lolu du yoon lolu tay mun mom lañuy dundu mu naqariñu ñu né nak nit do ko sess bom ag ci mir bi suñu centre bobu jaral nañu leneen dinañ ko tegaat ci suñu loxo ndax du pour ñun pour xalé yi ngeen gis ñu né sama ginnaw ñaar téeméeri xalé ñoo fa ñaar téeméeri xale lañ fa war a dimbale donc ñoo ngi tàllal loxo le procureur de la région de Thiès ñoo ngi tàllal loxo le gouverneur de la région de Thiès ñoo ngi tàllal loxo le parquet de Thiès xamal leen ne dossier ANAS la ca waroon ANAS mooy lépp luy document bu valable ANAS joxe na ko li ñu bëgg nag mooy ñu delloo ñu suñu sant ci lu mu gën a gaawee ndax tooñ weesuwul ñaar fukki at ak ñett terrain bi nga xamné centre bi fa la nek sax ñun ñoko mom ñu nangu suñu centre jox ko ñeenti nit yo xamné ne ñu fa jënd benn bank li ñu gën a compte bancaire yi nekkon crédit mutuel nga xamné ne financement DER la dañ ko wara a fay à hauteur de 650.000 par mois muy financement ñaar fukki millions ak yu tegal ñu dem lek xaalis bi yépp defuñu ko ci centre bi defuñu ko ci puune donc lolu du yoon ñiy waxal le président de la république Bassirou jomaa Diakhar Faye ñun albinos yi dañoo bëgg fi nga jaar sénégalais yëpp gis nañ ko fii son excellence usmaan Ngom jaar euh, Ousmane Sonko jaar sénégalais yëpp gis nañ dund nañ injustice ñëpp teg ci seen bët dund nañ métti ñëpp gis ñëpp teg ci seen bët tey yàlla moo leen teg fa ñu tegu kon waratuñoo seetaan benn sénégalais di dund injustice benn sénégalais ñi di ko tooñ te ñun dañoo gëm justice su Sénégal gëm nañ ne incha allahu rabbi suñu centre boobu dinañ ko dinañ ko teg suñu loxo ñoo ñu nga xam ne nekkuñu ci dëgg dinañ leen teg ci yoon bu loolu weesoo ma ne ñii nga xam ne tey dañ maa jiital dañuy dund ay jafe-jafe yu métti depuis 1960 ñu am indépendance ba léegi boolewuñ leen ci benn benn. programme boo xam ne tey dafay soxali ay nit bu ñu leen di wër mooy élection ñëw na ñu ne xaaral ñu dem def ay sacrifice ci albinos yi bu ñu leen di wër mooy programme politique am na wala bu ñu leen di wër mooy nañ leen dem seeti jox leen sarax ñii nag am na ci ñoo xam ne sax bu ñu juddee kenn du leen déclaré ndax seeni waajur jàpp nañ ne ñii duñ mës a tekki wala duñu dem ndax dañ ciy ñàkk yaakaar ndax yow bu dee da ngaa jur doom fanweeri minute kese. bu ko defee ci naaj bi day mel ne dañ koy sotti dëwliñ bu tàng kon jàpp naa ne suñu bëggee régler suñu problème ci catégorie boo xam ne dañ koy généraliser du dem moo tax li ñuy njëkk a ñaan mooy commission des droit bu assemblée nationale nañu saytu benn programme boo xam ne benn projet de loi boo xam ne dañ koy proposé le président ak le premier ministre niñ ko defee ci dëkk yu bari au niveau international muy vote d'un projet de loi boo xam ne dafay aar di soqali ak di jàppale ñi nga xam ne dañuy dundee laago bi ñuy wax puune bu loolu weesoo ñuy ñaan le président di ñaan le premier ministre ñi wax ak seen gouvernement bépp programme boo xam ne tey dañ koy yëkkatee ci ñu mën a jël ñii nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw comme ay priorité ndax bu ñu xoolee carte d'égalité des chances yi ñu ko ci am bariwul couverture maladie universelle yi presque danaka amuñu ko bourse familiale yi niko ci am bari wu ta man dama japp ne ñi li ñu renfermé ci ay handicap dafa bari sey beut baxul sa yaram mën ta def fanweeri min ci naaj boy jang do gis bo démé classe ñu teg la ci ginaaw parce que mëno gis tableau bi bo fébaré do faju bu ngeen xolé ci ginaaw amna ñu fa tok amna ñu tëdd dañoo fébar dañoo son amuñu sax luñu démé hôpital kon damay wax ne. bépp sénégalais dalee ci population bi dalee ci kiñ fi teg tey muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye dalee ci ki nga xam ne mooy usmaan Sonko yor gouvernement bi ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne injustice bi bëgg nañu à partir de semaine bi di ñëw ñu regle problème mu centre bi ñu delloo ñu suñu centre suñu puune yi mën a dem jàngi ci centre bi mën a nekk ci sécurité mais aussi état Sénégal jàppale puune yi jàppale waajur yi ndax ku mënta bay mënoo jàng amul benn école booy dem tey ñu jox la sa àq ak sa yelleef ndax ña fay jàngale kenn tàggatu leen boo demee hôpital tey mënoo faju ñi fi am cancer di def chimiothérapie amuñu kenn ku leen dimbale lépp ñun ñoo koy lijjantil suñu bopp ñun ñooy daw ñun ñooy ñaan mais léegi sax Sénégal boo demee yalwaane ñëw indi pour dimbale say ñooñ dañ lay enquête dañ lay dañ lay traité de terroriste dañ lay traité de faux et eh, usage de faux ah, en écriture té yow document yi nga am yépp ay ay ay ay ay ministre ñom ñoko signé nee nañ da ngay blanchiment d'argent xana ya. balé nga man nam ne ku saraxatul gumba nga bokk ak yalwanam ñun buñu ay nit dimbalé jox ñu nañu dimbalé len seen ñoñ nga né ñoñu dañuy blanchiment d'argent ndax lan bañal ndax lan tromper ay autorité dañu bëgg ñi nga xamné muy ñent nit yi ñu jël jox leen suñu centre dans les plus brefs délais nañu gendarmerie ñëwee nangu suñu centre nañ leen fa fekk jëlee leen fa delloo ñu suñu centre sinon l'irréparable dana am muy ñun waa ANAS danañ jël suñu disposition demal suñu bopp ci centre bi récupérer ko suñu bopp su boobaa nag luñ ci góobee ñu gar ay et defe naa ne balaa ñuy àgg foofu li ma doon wax ci njëlbeen bi mooy am nañu ay autorité jaar nañ ci suuf xeex nañu ba tey ñu àgg fañ nekk xam nañ lan mooy injustice xam nañ lan mooy toroxal doomu aadama xam nañ lan mooy mettital doomu aadama xam nañ lan mooy teg doomu aadama loo xam ne waru loolu moo tax ma ne yéen ñëpp nekk sama ginnaaw ànd leen ak man ngeen wax ne dañoo bëgg ñu delloo ñu suñu sant dañoo bëgg ñu delloo ñu suñu sant dañoo bëgg ñu jàppale ñu du yoon ñuy seetaan puune yi di dee ci cancer ñi war a jàngi dañoo war a jàngi ñi war a faju dañoo war a faju vive le Sénégal vive les albinos